Retour donc sur ce plateau des grandes heures, deuxième et dernière partie de votre euh, magazine. Nous sommes mardi, alors euh, elle nous revient. mais avant de de lui passer la parole Cheikh Sidi na nga def. maa ngi fi yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. yaa ngi entraîné ba léegi ah apparemment. tey après midi am naa match. moom bu ñu duggee sport du ñu bàyyi quoi ça me ça me rappelle mon cher ami il est à Nit Baydi Sarr mhm. ancien international juste ah, quarante cinq ans waaw puis s'entraîne toujours ah oui ah, j'ai dit mais à un moment il faut décrocher non mais c'est la forme bon pour la santé vous voulez être compétitif partout. <laughs> fi may waxee man rek maa ko <laughs> jëli nga. kon man fi ma jëm foofu nga jógee. jógee ma foofu de. Mm. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm alhamdulilah. rose bi saf na de. waaw noonu la rose bi mooy. amoureusement amoureuse. même pas. d'une personne inconnue. même pas mieux vaut mieux vaut être seul que mal accompagné je préfère. ah bon. Ouais. ah été mal accompagné dans le passé. waay yàgg tànn de. indi moo tax. actuellement tu n'es pas accompagné. non merci baax na. allah mon cher ami. si direct bi nag. benn mooy wut si direct bi mon cher ami. nee na il est c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les mardis pour parler de l'actualité sportive ah boo ma gisee tey gis sama invité muy Cheikh Sidibé c'est pour parler 100 pour 100 foot on va aller à Rufisque. foofu laay njëkkee am pourquoi yoo di ngeen ko xam léegi léegi. Hmm. benn dañu dem xooli image yooyu ñu ñëwaat ci plateau bi te je par directement ak yow. on n'a aujourd'hui que ne dañoo demoon euh, dem euh, Rufisque Rio pour xool yi benn final nawetaan nawetaan dañ koy wax à chaque fois mais dañuy wax ne chaque jour day ànd ak violence pourquoi moom moo ne image yi c'est pour sensibiliser aujourd'hui les jeunes mais gën a kontaanaat ci aussi si mobilisation bi félicité zone 1C bu Rio xam ne lébu gi ak jàmm gën ñoo fa doon finalu certes lébu gi dañ ko mënee woon premier mi-temps mënee ko par 1 but à 0 mais mu ñëw def remontada mëne 3 à 1 mais match bi soo gisee moo wane ko rek mooy public bi nga xam ne ni gis nañ ko fa yow mii gis nga public bi Cheikh Sidi yaa ngi seetaan public bi mhm. tey jii nan la ñuy def ba jël public bi yóbbu ko ci championnat bi championnat bi jamono ji mun naax dafa nii la def daal nii mu ngi kalang-kalangi mhm. mais tey public bi soxla nañ ko mais tamit doomu Rufisque yi du ñu wone tey y'avait amoon y'avait tout le monde xale mag ñëpp fa woon ñëw communier autour de autour du football te jii exemple la lu baax la aussi ñu wane ko wan gars yi ne sport day war a dajale moo tax ma fexe daal teg ko. bu tax nga que moom boo gisee rouge blanc bi rek dafa lay fàttali Cheikh Sidi xam na fu may waxee. les saltigués de Rufisque saltigués de Rufisque waaw. Hmm. mais moom man nee naa man léegi lébu gi laa far. <laughs> lébu gi bari yàlla ñun laa faral parce que keroog def nañ fa spectacle joué nañu gagné may fil sewu ci parrain bi mobilisation bi nga xam ne def na ko maître Babacar Ndiaye boobu président TFC ma leen di félicité bu baax a baax a baax Cheikh Sidi. public bi nan la ñuy def ba transférer ko ci championnat sénégalais bi nga xam ne jamono ji ngi mel ni luy waaj a dee ah je pense que pour transfert il faut que déjà que ñoom ñi collé seen club de ville. Mhm. de la ville de de et que TFC et que si suñ euh, championnat stade bi nii la nii mhm. parce que c'est mal vu que na jël ay population une population rufisquoise jël leen indi leen Dakar ñi par exemple peut-être et tout il faudrait que mu commencer si ñoom. Mhm. Teungueth FC di déplacé wu ñu ànd ak moom yóbbu ambiance bi foofu parce que lii nii mhm. mooy def. Euh, charme charme football. et que tey jii nii soo gisee ma final nawetaan mu am public bi yëpp et euh, la fin amul ay xeex amul ay. message bi fort la lu loolu dafa doon message bu fort boo ne war na yee bés bépp mhm. sportif. oui tout à fait je pense que c'est un exemple à suivre. Mhm. et que lii nii war nañu ko wane ci quartier yu bëri. quartier yu bëri zone yu bëri xam ni que nii nii xam ni que football lii la football lii la football dafay unir au lieu que muy désunir mhm. et que lii rafet na trop man ba ma gisee image yi dama am ay frisson mhm. parce que lu mel ni gën ñaa ko gis surtout Sénégal surtout nawetaan nga xam ne chaque fois que de poisson lay terminé et félicitations vraiment bravo à waa waa Rufisque Rufisque ah. mais demi amaat na beneen final ñañ sàmm mooy football ak cité millénaire dañ leen di ñaan rek tey jii lébu gi ak jamono ji lu ñu wone ci stade bi ngeen wone lu ko raw def mobilisation mais def ko ci kafak ree may jaar foofu di ziar ñi nga xam ne ñoo ma dalaloon bu baax muy Ibrahima Borom Riyow ak euh, Pape Diagna ah, dafa war a jouer jouer suba maa lay bonne chance aussi ñu jàll ci équipe nationale ah. Hmm. defe naa actualité bi loolu benn loolu lay xaar de. non il le faut. il faut parler de l'actualité sportive. Ah, on a rajeuni l'équipe. <laughs> rajeuni une nouvelle tête. nouvelle tête et voilà y a pas que Sadio pour porter le 11 national. man je vais parler du premier match mooy premier match premier sortie des Lions tey jii Sénégal Congo man personnellement j'ai vu premier mi-temps j'ai vu une équipe engagée qui avait des actes. Mm-hmm. deuxième mi-temps ma ñëw gis équipe boo xamante ne dafa bàyyi. on a l'habitude de le voir avec cette équipe nationale on ne comprend pas mm-hmm. tey jii dafa mel ni sénégalais yi dañu gaaw a suur il marque deux buts ça leur suffit personnellement yow yow yow yow yow mi nekk joueur nekk ancien international est-ce que loolu tey jii psychologie nu mu tudd euh, joueur sénégalais la bu dugalee benn but rek daa war a bàyyi. Ah, dafa gaaw a doyal quoi. daf si daf si daf si jeu je pense que sénégalais dafa am euh, mentalité boobu nga xam dafay gaaw dafay gaaw a suur. Mhm. ce qui fait que ba léegi nii loolu moo tax ba léegi actuellement nii on n'arrive pas à avoir un titre un titre majeur. Mhm. et que ça c'est joué dañuy reyante reyante dem ba benn moment boo xam ne que bii dañuy egg si asu final bi ñu ñëw foofu. Euh, lâché mhm. donc ça ça ça joue dans notre mental on l'a vu match bi contre contre Congo à Thiès on fait une très bonne première mi-temps une belle équipe joueuse. bonne euh, entame bonne entame équipe bi géré match am et tout en deuxième mi-temps ñi ñëw. affaire bi mhm. euh, le changement tactique des Congolais. Euh, a mhm. en toute la seconde période le Sénégal n'a pas eu d'occasion de but. Mhm. on a vu la première période. sur plusieurs actions on a vu l'apport de Habib Diallo Habib mais Diallo. en seconde période il était en mhm. seconde période bu muy génn pratiquement il a touché deux wala trois ballons la deuxième période mhm. on a vu beaucoup de jeux aussi éteints mhm. et donc loolu par rapport à la mentalité euh, il faut avoir une mentalité de tueur. il faut mentalité boo ne dañuy de la première à la quatre-vingt-quinzième minute. il faut que je sois sur mon match. Mhm. il faut que je sois dans le match et que kenn du ma déconcentré et que euh, le Sénégal doit le Sénégal est le premier en Afrique. Mhm. avec n'importe quel adversaire dañu war a sentir euh, hiérarchie boobu. Mhm. mais fii tey jii nii quand on a entre guillemets. boo defee comparaison bi premier mi-temps deuxième mi-temps. premier premier mi-temps deuxième mi-temps on a une petite équipe là le Congo c'est pas une foudre de guerre. et que première ba deuxième ba dernière minute.

nga def seconde période nga ñëw nga changer visage aujourd'hui dama yaakaar ne ñun ku ci nekk boo seetaanee télé wala nga seetaanaat match bi war nga mën a conscientiser sa bopp parce que parce que man si di li muy wax ni problème de mental boobu mm-hmm. est-ce que l'entraîneur mm-hmm. peut transmettre mm-hmm. son état d'âme sa arme à ses joueurs Aliou Cissé on l'a connu joueur hableur harangueur euh, et pourquoi euh, loolu duñ ko sentir sur sa troupe oui mais ça dépend parce qu'il y a des joueurs qui sont réceptifs réceptifs et d'autres non. Mhm. yaa am na ñenn ñoo xam ne soo leen dégg suñu suñu suñu dinañu dégg soo leen transmettre dara dina jàll mais am na ñenn ñoo xam ne ils en font qu'à leur tête. Mhm. donc si tu passes un message c'est perdre c'est perdre c'est perdre du temps danay danay kii duñu la déglu. ils vont pas appliquer. Mhm. ils vont pas appliquer mais c'est des professionnels c'est des professionnels ils doivent avoir un autre comportement dans le terrain. dans le être à professionnels. un professionnel ne doit pas lâcher pendant un match pendant. 90 toute la durée. avec le, le temps additionnel, il doit être dans son match. Même si on menait à 5, 5 6 0, tu ne dois pas lâcher. Mm -hmm. Tu dois pas lâcher, tu dois être concentré. Mhm. C'est ça qu'un professionnel doit, doit se composer. Il a parlé des jeunes tout à l'heure. Je vais ci titularisation bu nga xam ne mooy Salif pas Salif Sané Sidi Sarr ak Habib Diallo. Mhm. tey jii sur place à domicile ils ont marqué des points. Mhm. mais dama gis gars yi le lendemain ñi def comparaison. par comparé comparé ñuy comparé Sidi Sarr à Pape Alioune Ndiaye. Habib Diallo est-ce que aujourd'hui mën nañu ko comparer ak Mbaye Niang wala est-ce que Mbaye Niang ak Diao Baldé Keita se sent pas menacé par Habib Diallo. non pas du tout je pense que c'est ça c'est ça c'est ça le malheur avec les Sénégalais. Mhm. fii on s'enflamme trop vite. danay ñëw gis benn joueur. def benn match un match entier il te fait un demi match. un bon demi-match gars yi commencé retard non kii ma war a jël place du titulaire bi kii ma war kii non ça fonctionne pas comme ça un jeu on le on on on le on l'analyse sur sur sur une durée. sur deux à trois matchs sur sur plusieurs matchs. mais mm. pas sur un seul match. et donc tey jii nii man Habib Diallo il a fait de bonnes de de bonnes choses. Euh, Famara a fait de bonnes choses mais tey jii nii man pour ba tey jii nii le numéro un en attaque en poste avancé c'est Mbaye Niang donc. il y a quelque chose qui s'est passé ba léegi. mais marque plus surtout à la coupe d'Afrique. il n'a pas marqué. il faut analyser avant la coupe d'Afrique il a porté le Sénégal pratiquement mm-hmm. il était le buteur. Mm-hmm. il marquait mais sa coupe d'Afrique ça arrive pour un jeu surtout centre danañ dem benn moment boo xam dans un mauvais passage et que ça sourit pas tey jii nii jël Habib Diallo bëgg ko je me dis que les gens. ils font fausse route. Mm-hmm. c'est très tôt Habib encore un rôle de titulaire dans l'équipe mhm. ça c'est d'un Habib n'a pas le vécu de Mbaye Niang c'est deux mhm. d'accord il est en train de faire de très bonnes choses avec Metz c'est bien de le titulariser et qu'il puisse marquer c'est bon c'est bien pour sa confiance c'est bien aussi pour l'équipe nationale de, idem pour Fama pour Famara Diédhiou on parle de Sidi Sarr de Sidi Sarr ak ak euh, Pape Alioune Ndiaye je dis que vu la dernière Coupe d'Afrique mm -hmm. la prestation de Pape Alioune Ndiaye ma je me suis dit que c'est c'est malsain de comparer Sidi Sarr et Pape Alioune Ndiaye Pape ce qu'il a fait c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe il a été le pratiquement l'un des meilleurs lors de la dernière Coupe d'Afrique tey sur un match Sidi Sarr fait de bonnes choses ñu bëgg ko tëqaleex Pape ko jël ko bëgg ko euh, euh, jël mu jël place Pape Alioune Ndiaye titulaire ça c'est très tôt mhm. laissons-le se développer il est encore jeune mhm. Pape Alioune Ndiaye lu mu def ba tey jii nii Sidi Sarr defagu ko Laissons-le se développer, de gagner, gagner en confiance, avoir du vécu et se et gagner sa place de titulaire en équipe nationale. Mais sur leur prestation lan nga ci jàpp yow. non euh, sur Habib ak Sidi. Habib il a fait une bonne première mi-temps. Mm -hmm. il a marqué mais en deuxième mi-temps on l'a pas vu on l'a pas vu donc ça veut dire qu'il lui reste encore parce que un joueur on le ju on, on le juge par rapport à, à son contenu et par rapport à à la continuité. Mm -hmm. euh, Sidi Sarr il a fait de bonnes choses il a marqué aussi lui pareil. Mm -hmm. il a il a marqué mais aussi il a des il a des défauts. il a des, il a des défauts. Mm -hmm. qu'on a vu lors du deuxième match aussi il a des défauts donc il faut là il faut laisser le temps de se de se de de, de prendre de, de prendre la confiance. Mm -hmm. d'avoir du vécu de se d'être un d'être dans la peau d'un titulaire et après dans la durée on pourra dire vraiment que euh, Sidi peut remplacer valablement. Euh, et qualitativement euh, Pape Alioune. avant de parler de la deuxième sortie on va parler si capitaine bi la ñuy jëm capitaine bi on change de capitaine on donne ça à. <laughs> à Koulibaly je n'ai rien contre mais aujourd'hui Koulibaly aujourd'hui moom tamit def na loo xamante ne ci équipe bi ñëpp gis nañ c'est un leader mais titularisé ay euh, Kouyaté dugal Kouli nangu brassard bi dugal ko jox ko Koulibaly mhm. lan la mun a ban ban effet la mun a def ci équipe bi moi je me dis que c'est inégalant c'est inégalant c'est gauche mm -hmm. parce que Kouyaté avec tout ce qu'il a fait en équipe nationale bien que c'est un joueur boo xam ne que euh, bu tey mu baax bu subaa du baax et tout mais il a fait quelque chose il a il a il a fait quelque chose dans l'équipe nationale il a fait quelque chose pour le pays mm -hmm. et que depuis lors depuis bu yàgg c'est lui le capitaine donc équipe boo gis dans le monde que ça soit en équipe nationale que ça soit en club dafay am hiérarchie avant saison bi di commencé bu fekk équipe nationale avant regroupement yi on dit que c'est lui le capitaine lii kii mooy vice capitaine kii mooy deuxième vice capitaine et tout tey jii nii tout le monde connaît suñu waxee kan mooy capitaine Sénégal on dit Cheikh Kouyaté euh, Koulibaly c'est un leader naturel mm-hmm. de par sa personnalité de par ce qu'il ses prestations ses performances c'est un c'est un leader naturel mais il n'a pas encore la carrure d'un d'un d'un vrai capitaine parce qu'il est calme et un capitaine on a besoin de quelqu'un koo xam ne sa gars yi suñu nalaw moo leen di on sent que y a y a a une personnalité chez toi mm-hmm. mais tey jii nii na euh, man j'aurais compris il est remplaçant na jël brassard bi jox mais ce retrait pour man c'est message que Aliou lance mm-hmm. parce je pense que s'il y avait la présence de Salif Sané mm-hmm. il n'aurait pas joué et que tey je pense qu'il a joué le femme concours de circonstances la CAN c'était pareil au début il était remplaçant. kon lu ko dese si si si. ah man lu ko dese bëriwul il est plus près de la fin que que que que, que du début. Exactement. et que tey jii nii peut-être que Aliou est en train de lui préparer la sortie Euh, jéem ko ànd defaale un peu de diplomatie. Mhm. mais match bi passé man mu nekk ci titulaire ci équipe bi 11 bi nekk titulaire ñu retiré brassard bi si moom je me dis que c'est inégalant c'était pas une chose à faire moo ne ko bàyyi mu continuer takk brassard bi que d'ici quelques matchs. muy génn ñu koy moo gën a rafet. ñu ñëw deuxième sortie bi ah damay attaquer directement c'est Sénégal Eswatini. Ah. j'arrive à le prononcer parce que début dama amoon problème pour c'était une équipe méconnaissable que j'ai dit que j'ai vu en première période équipe boo xam ne ne dañ ko pressé bay équipe bu ndaw boobu jël confiance Sénégal xàmmeetu ko woon il a joué trois jours après mu dem jouer Eswatini kenn xàmmeetu ko ndax nga ban jàngat nga def ci loolu man euh, si reportage ba ma nekkee si reportage pour match bi je l'ai dit heureusement qu'il y a eu la pluie parce que début de match ba ba taw bi egg si moom le Sénégal kenn xàmmeewu Sénégal le Sénégal dafa sonn am nekk dans la difficulté. après taw bi même jeu bi même jeu bi on avait du problème à. même jeu bi dañuy gis ni équipe Eswatini ñoom ñoo gënoon seen jeu moo gënoon posé ak jeu Sénégal. Mhm. et ñoom ils sont arrivés à avoir des occasions sonal équipe nationale Sénégal. et là quand lu gënoon lu gënoon grave mooy chaque fois à la perte du ballon Sénégal. Swatini su yoree bal bi jour Swatini su yoree bal bi le Sénégal dañuy gis seen défense était à découvert nit yi euh, jour euh, euh, Swatini yi mhm. dañuy song défense Sénégal bi facilement donc ça veut dire qu'il y a un problème surtout au niveau du milieu de terrain la triplette qu'il y avait entre Loum Pape Alioune mhm. ak Crépin au début on a eu des problèmes. Maître Pape Alioune Loum est-ce que c'était la la bonne décision non pour c'est ça tey jii nii soo gisee eu des la sortie du ballon pour génne bal <laughs> euh, il était perdu. Mm. c'est pour cela soo demee ba ñu dem ba si biir match ay cinq minutes. Aliou réaménagé. Mm. jël euh, Pape Alioune d'un cran mu nekk en piston avancer Loum. Mm. là y a eu peut-être un léger mieux mais ba léegi desoon après pluie bi daal affaire yi changé bu baax na gis ni nga am affaire mu am changement. mais on a souffert Famara qui rate un penalty qui marque 3 trois buts après est-ce que aujourd'hui loolu message la aussi c'est un message fort. la prestation de Salé Thioub on peut pas parler mënuñ ñëw ci lépp parce que on nous signale que deux minutes non <laughs> c'est un message fort et que c'est un jeu à fort mental. Mhm. parce que raté penalty aussitôt euh, le point noir mu efface ko il se reconcentre et que arriver à marquer un triplé il faut être vraiment fort pour le faire donc c'est très tôt pour qu'il soit pour pour qu'il soit considéré comme un titulaire. C'est à lui de travailler, de confirmer match après match, et après là, les choses viendront facilement. Mais c'est un message fort qu'il a lancé aux autres joueurs avec qui il partage ce poste, et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe nationale. Vous secondes, parce les dames qui sont de l'autre côté là. Eh, questions là, j'ai deux questions poser. C'est la de El Hadj comme manager général. naka gisee tey El Hadj Diop dans cette équipe nationale. ah c'est une bonne chose par rapport au vécu de El Hadj par rapport à à sa statut à son statut. Mm -hmm. par rapport à lu mu mën a indil équipe nationale de par son nom et que surtout au niveau de l'attaque il peut apporter beaucoup aux gosses et que il y a eu des des problèmes des querelles en, en, entre entre entre lui Aliou entre lui et la fédération. Mm -hmm. mais je pense que léegi nii tout est au beau fixe espérons. que ça soit une chose sincère des deux côtés mhm. et que pour le bien de l'équipe nationale que tout le monde se retrouve et que pour pour qu'on œuvre pour la bonne réussite de notre Sadio Mané Ballon d'Or Sadio Mané qui a réagi qui a surpris beaucoup de monde hein. sa façon de la façon dont il a réagi la fois passée lors du match mhm. réaction Sadio Mané euh... man en tant que joueur ah, non en ouais. tant que joueur man je me dis que même pas en tant que joueur moom c'est par rapport à son statut. Mm -hmm. par rapport à son statut à, par rapport à ce qu'il représente je pense qu'il a mal agi. Mm -hmm. il a mal réagi et donc pour man il doit avoir plus de retenue il doit être plus costaud. parce que il faut que moom mu dugg si boppam. terrain bu dem lii moo ko lii moo ko fay dal. donc c' est à lui de réagir d' une façon boo xam ne que. Euh, ay carton rouge ak yooyu yëpp du rossi du rossi du rossi dal. merci beaucoup Cheikh Sidou Ba. Cheikh Sidou Ba quand on entend son nom on pense que c' est un marabout. c' est un <laughs> ancien international. de, de football on, on, on l'adore parce qu'il est très poli. Uh-huh. très correct en Merci. tout cas. Uh-huh. quand il était euh, là. comme joueur et maintenant dans la vie euh, civile est très correcte. C'est pourquoi on aime bien l'inviter et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec lui. Cher Sidi, merci. Merci à vous. Fatima Silla, toute en rose, toute jolie, toute amoureuse, de qui on ne sait pas. Merci, euh, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Demain, 12h, un autre numéro, on se retrouvera pour parler d'autres problématiques. Portez-vous bien.